ñuy naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bu ngoonee bala ngay naan ma wax la li xew ci réew mi réewum Sénégal yëgle kaay bi ne démb ci suba laa la wax xaw tuut ay astu soxna yu bare bare bare am ci réew mi ndax kat li ëpp ci ñi doon matu ci réew mi yëgle bi ne ñoom ñëpp a sonn l'observateur ne moo xam Rufisque Mbour Tambacounda Louga ba Diourbel yëgle bi ne ku fa doon matu démb ngir wasin ci ay jafe-jafe nanguñu sax a xool bay dimbali mbaa ñuy wàllu ñi nga xamante ni yëglekaay bi ne ñoo demoon ngir am doom journée dem bi laa la wax wax na xàtt ci ñi nga xamante ni bi ne ñoom ñoo war a am doom ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sage femme yi gi ñu lank ni duñu xool benn malade banque seen ay loxo yëglekaay bi ne ginnaaw ñoom ni ki tey jii ñi fa seen loxo mooy ñi nga xamante ni ñooy yëngatu ci wàllum jaayum garab yëglekaay bi ne ñooñu pharmacien yi la ñuy wuyoo ñoom itam lànk la ñuy def tey ni duñu jaay benn malade moom kay fi mu toll nii askan sunu gaal wàllum paj meeg paju mi fi mu toll nii tàggat tembe temb la def jigéen ji ànd nag doomam yëglekaay bi ne doom jay matu uppil yéenekaay bi xool sax ndax doomam fu mu yem ak fu mu yemul kenn li jël tiw ko faale wunu ko yëglekaay bi ne mu metti te doy waar ci moom muy biteer ñi ko ko wëndeeloo ko wiñaaroo ko metti tam kenn ñoom ña ko doon xool yëgalul ko sax seen yaram libération yéenekaay ne démb ko doon ñëw ngir matu yëglekaay bi ne dañ la dàq laa la wax ci pitiin mu nekk mbir mu yéeme te doy waar ci askanu sunu gaal dëkk bi nga xam ni yëglekaay bi ne bis bi yàlla sàkk li fi juddi ci ay kon nag ñëpp a war a dox doxu ñaxtu ñëpp a war a gerew ba mu des ñi nga xamante ñoom ñoo di waa kër docteur rawatina sage-femme yi bés bi la journée mbir mi kay xaru dëgg la danger de mort weesu ko kay ndax ma toog ni mu méttee jigéen gagar-gagaree biiram ba yëg si lijjanti woo ko faale woo ko metti na te doy ñi nga xamante ni yëglekaay bi ne mooy ñi ñuy woowee ay internautes maanaam ñiy correcté woo ko yëngatu ci internet bi les échos yéenekaay ne ñoom mer la ñu def nañu moo di sage-femme yi la ndax seen gerew bii di journée sans maternité yëglekaay bi ne gerewub criminel ka xaatim ci seeni commentaire yëglekaay bi ne moo di dañ leen a war a licencier ñoom ñëpp dàq leen wut ñeneen ndax kan mbir mu ni mel da ay yéeme te doy waaye revue de presse du jour ak xamle moo yow kuy am doom taxaw woo ko mën naa ñàkk bakkanam doom jaay dem na naa ñàkk bakkanam moo tax xaw ma ñana war di gerew waaye sage-femme yi wóoruñu cee bokk yëglekaay bi ne ñi gereew tey di waa kër docteur di ñay yëngatu ci wàllum njënd ak njaayum garab ñoom itam fas yéene nañoo bank seeni loxo tey lànk ni duñu jaay kenn ay garab nit amul garabam yëglekaay bi ne kenn mënta tee ba ñaar ñi duñu tëdd ubbil yéenekaay bi ñooña ñooy ñaari député yi di Bieye ak Sall ubbil yéenekaay bi ñoom ci seen jëmi bopp yoon daan na leen lu tolloog ñaari atu yoo xamante ne ñetti weer ya dañu koy tëdd libération yéenekaay li ma juge ba nee na leen yéen ñi ay député escroc ngeen ak ay député yoo xamante ne leeroo juboo leen da ngeen a foo moom kay mi ku dëkk njuuj njaaj ak lëmba foog ni da ngay ci di balaxal madda jàpp ni kenn du ko yëg yaa ngi nax sa bopp ma ni lii du ay yéenekaay bi carburant am nanu ko fa mu doy fi toll nii tembe kay gisagum nañ lu tolloog deux bateau waaw ñaari bateau yoo xamante benn ba 18500 tonnes la ba ca des 26000 tonnes yéenekaay bi ni ma moom kay jëwriñ ji yëngatu ci wàllum pétrole assuré na ñi nga xamante ñoom ñoo di ay ñoñom ka assuré waat ay ñoñom ci carburant yéenekaay bi ne kooku Adama Diallo lay wuyoo maire Gossas ubbil bi moom ci jëmi bi ne ba noppi nag teg lu dul évacuer ay malade képp rek dong nay leer amul leneen lu ngeen ci def ñay yitte woo carburant saa su ne yëglekaay bi ne ba ci kérosène askanu sunu gaal am na leen lu leen doy sëkk laa la wax lu leen mën a yóbbu ba ci fin mai bi mais man mën naa ànd ku nekk ci élection yi nu jëm yëglekaay bi ne ba mu des laa la wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa yeewi askan wi yooyu la kàddu ko ko yëkkati maam Abdoulaye Wade lay wuyoo yëglekaay bi ni ma moom kay diggante PDS ak yeewi askan wi day gën di ñagas juboo mbaa ànd ci seen biir kenn da koo séntuwul ba koy askan bi yëgle bi ne ndekete yoo seen yaakaar yëpp lu ci ëpp ko teg ci Malick mi leen di dimbali saa suñu nekkee ci ay jafe-jafe mbaa ki xat-xat saa suñu soxlaa koppar moom Malick Gakou mooy taxaw dimbali leen ba ci millions yi moo leen ko jox yëgle kaay bi ne ba ci fu nu taxaw dimbali leen moom kay looloo yeewi sax ñëpp ba mu des Malick Gakou laa wax yëgle bi ne ma njiitum réew dëkkee gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo di maire yu bees yi ak yenn maire yi nga xamante ne ñoo ne ci opposition bi lan la ko mën a jural ubbil yéene kaay bi askanamam nay wàññum askanam lu ci am ba des daal doy na li doy waar tool yëgle bi ne moo xale bu jigéen bii nga xamante ne ci info yéene kaay ne moom ci jëmi boppam laa ku ko woo laa wax ni ko man la agent wéef muy wax ak taan moom ba yàgg mu ni ko négal ma paas la sa patron ne xale bu jigéen bay liggéey ci transfert d'argent ba ne kaay mel ni ku takk buum ci bakkanam laa la wax di ko diri fu leen neex ñu jëmale naa ko demal ci commerçant yu mag yi nga dendal ñu àll téléphone nga def transaction ak naa ko dugalal fii un million dugalal fii cinq cent mille muy dugal fa la envoyé daanaka luy bëgg a tolloog 3 millions francs CFA yëglekaay bi ne ndekete yow ay ay arnaque kese la ndaw sa nekk ci gudd gu bët setagul yëglekaay bi ne patron ba ni ko dang may fay sama alal borom bitig ya taxaw di ko fayeku yëglekaay bi ne mu yéemu te jaaxle jomi jomeet kii ndax li mu def yéemal ne leen jaaxal ne leen man de waaru naa oublié na kaay bi ndaw si ci jëmi boppam la mu bëgg na def moo di dondu borom këram bi te deewagul jël këram gi dàq ci këram yi yëglekaay bi ne ba mu bëggee borom kër ba faatu la mu def mooy est ce que nag yàlla suñu borom mi subhaanahu wa taala mi dara teewul dogal na borom kër ba ami wàllu laata muy faatu ca lanu ko pikiir ba xoolee saytu gis ne jabar jee ko doon jéem a pikiir mu faatu mu jël doon këram gu rafet ki la <laughs> ndax kër jànnar yi moo ma jaaxal sëy laatin bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam jaagir joof mi nga ko jërëjëf jaajëf yéen ñi nga xam ne yéen may teewlu ci Thiès Info ngeen mën ne ci na ma daan def nuyu leen jaajëfal leen njukkal leen delloo leen njukkal waaw da ciy baax jox leen seen wàccuwaay yéen ñi nga xamante ni yéen a jël seen temps di ñu teelu saa su nekk euh, doo lay jën ndox la waaw ndox la waaye ñun ak sunu doole yéen ñi ñuy teewlu la ba tax na kon amuñu seen fay kontaan nañ leen euh, béggee nañ leen jox leen seen wàccuwaay waaw di nuy bu baax a baax a baax képp koo xamante ne rek yaa ngi teewlu saa su nekk revue de presse bi waaw foo koy teewloo ci réew mi wala ci bitim réew fu mu mën di doon nuyu nañ la jox la seen wàccuwaay aca euh, nuyu bu baax a baax a baax également euh, ki nga xamante ni moom moo di daa Dabo sama xarit la maa ngi koy nuyu El Ba nuyu baax a baax a baax maam maam Jaara Diop jox ko wàccu waayam kontaane ko waaw moom moom sama xarit la sama xarit la macha allah nuyu Aboubacar Dabo wax naa ko léegi nuyu El Hadj Sakho Mor Gueye sama xarit nga nee na ma 5-5 Oumar Diallo euh, Mortala Baan maa ngi koy nuyu Papa Thiaw jox ko wàccu waayam bu baax a baax Karamba Kayta Karamba Kayta de nuyu naa ko bu baax waaw nuyu naa ko de nuyu naa ko bu baax waaw waaw Pape Diop boroom Mali Bamako nuyu naa la yow sama waay nga ah Marème Dieng waaw nañ wax Marème Dieng rek <laughs> waaw bëgg nañ la bu baax a baax a baax jox la sa wàcc waaye kontaane la euh, kontaan bu baax ci kipp koo xamante ne rek yaa ngi nuy teewlu euh, buntu néegu kawte fii ubbeeku ak Fall Dammel sama xarit ba koy teewlu saa su nekk di ko safoo euh, kooka ma ngay wéy ci turu Thiamas maa ngi koy nuyu di ko jox wàcc waaye nee na ma Fall Dammel saa su nekk rek maa ngi lay bàyyi xel di la teewlu te it fu ma toll naa Fall Dammel borom. kafe euh, gi aca kafe gi nee naa leen kafe gi dafa am jar am lépp waaw ñu koy ndogoo xam nañ ci dara mais may jaajëfal bu baax a baax a baax a baax euh, Serigne Moustapha Serigne Moustapha Kama Samb waaw kooku day wax dëgg yàlla euh, jaajëfal naa ko jaajëfal naa ñëpp waaye moom démb daa maa bette ay teraanga yoo xamante ni fu xëy na sama njort ni ma faal sukkaru koor baa ngi noonu <laughs> faa ma nuyu ko ay ci mi ngi noonu ci noonu laay nuyu le greffier du tribunal de Kaolack Ndangaan président conseil départemental Moussa euh, euh, Moussa Kouaté lay wuyoo le maire euh, monsieur Adama Diallo aussi maa ngi koy nuyu moom itam def na lu am solo yëkkati na lu toll ci quatre mille quatre mille litres carburant jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa dëkk ba waa waa waa Gossas ni leen pour évacuation yi rek pour évacuation yi rek pour évacuer malade yi rek loolu moom am na solo. ayca nuyu képp ku ñuy teewlu rek moo xam ca Gossas ci Thiès ka ay piir ak fu mu mën di doon ci biir réew ak bitim réew waa waa bitim réew maa ngi leen di jaajëfal jaajëfal ñëpp mbokk yi jox leen di daje ba suba ak salaam ci samedi bi jërë ngeen